bu taxawé dilay lay saaga nga defant ak mom loolu moy wax bi dañu wara yaru. ban ban donc moy ñepp and ci dal. nañ ñu and ci dal tañu xamné yalla nopi na. ki wara falu jitu na judoom ñun dañu dañu def suñu dañu ay formalité lañ def rek mais ki wara ku wara tok suba xolal yalla nopi na ken quel que soit alpha moy nek mom mo fi nekk maire waaw yàlla na ñëpp am jàmm Sénégal am jàmm Dakar am jàmm Grand am jàmm loolu laay ñaan. aleykum salaam. na ngeen baax maa ngi lay ziar. ma ñu ngi lay doon ziar waaw dama ñëw pour voter si. fii nga xam ne mooy foyer. waaw foyer des jeunes. Euh, embouteillage embouteillage laa fi gis te c'est pas normal ñëw voter moom jarul embouteillage parce que ñëw yaa xam ki nekk sa xol ki ngay votel nga votel ko ci jàmm ak salaam nga dem ñibbi sa kër ci jàmm ak salaam parce que loolu la ñu woote waaye woote pour ñëw xiiroo ŋaayoo da ngay woteel diw wala da ngay woteel diw nit ku nekk ku ne yaa xam ki doy doyloo ko nga xam li nekk sa bopp sa xel nga dem woteel ko ñibbi sa kër toog. d'accord mais sànq ba léegi dina gis benn engouement xeex am ceeg yu deme noonu nan nga jàngatee loolu. waaw loolu ni ma ko jàngatee mooy que ne ñi nga xam ne dañu nekk ci biir di ruube te ruube waru fee am parce que nit ku nekk ku ne nit mën nga ànd ak nit sax te fekk yow sa xel nekkul ci moom pour nga woteel ko parce que nit ki ku doyloo ci xoolam ak xelam moom lay woteel. waaw loolu daal mooy yéene bi waaye amul leneen loo xam ne war na fi mën a am loo xam ne nit war na ko mën a indi ay embouteillage ak ay problème ay situation yoo xam ne day amb day sonal nit ñi sonal askan bi. jërëjëf waaw jërëjëf maa ngi lay ziar jërëjëf. waaleykum salaam man la Pa Magor Pa Magor Touré. Ah, loolu moo fi am affaire bi ñun ñëpp Grand Yoff lañ dëkk. ñu ñëpp Grand Yoff lañ dëkk citoyen bu nekk war na mën a ñëw voté ñibbi si jàmm ak salaam jarul xuloo jarul xeex xeex mi yëpp mooy carte yi ñooy atte yaa ngi dégg carte yooyu atte xuloo jarul xeex bon maire sortant moo doon jàppanteex maanaam force de l'ordre parce que parce que dañ téye woon xam naa kenn si élément bi mu doon kii xaw ma daal nu mu demee mais ñoom daal mais ñun moom waa Adama Faye coalition defar sa gox dañuy ñëw voté si jàmm ñibbi si jàmm ak salaam yaa ngi dégg bu ngoonee incha allah ñu jël ndam li. Euh, waaw mais ku vote loo fiy def da ngay vote ñibbi soo amee mag bu dëkk sa kër nga jàppale ko ñëw ko mu vote si jàmm ak salaam si jàmm ak salaam mais boo voté nekk fii dugg dugg si lu sa yoon nekkul lu la fi dal yaa ko teg sa bopp loolu kese moo fi nekk da ngay vote ñibbi si jàmm ak salaam. nan ngay tëjee. waaw li may tëjee mooy maanaam fii ñu ñëpp Grand Yoff lañ dëkk yaa ngi dégg.